لا يعلم ما تغيد الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة عن علي بن أبي طالب عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم ألا تصلون قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جردا kene ci abdullah ibnu umara radiallahu anhuma mu jëlee ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu wax ne caabi xaybu maanaam xam xaybu kenn caabi xaybu kenn xamu ko lu may yàlla caabi moo gën a sori sax bunt ba gën a sori néeg mu tudd juróom yi ne lu roxum yi di mbërëg maanaam lan lañ ëmb kenn xamu ko lu ma yàlla loolu bokkut ak tey jii jigéen ñi mën a dem def échographie ñi xam ndax góor lañ ëmb walla jigéen waaye dëgg-dëgg lañ ëmb lim làmboo kenn xamu ko lu ma yàlla kooku bu judd ndax ndax dana judd ak bakkan ak bu juddoo nu muy mel loolu kenn xamu ko lu ma yàlla li nga xam ne mooy ànd ak moom dooleeku xel ak imaan ndax dana gëm walla du gëm loolu yëpp xam-xam yàlla kenn xamul lu nekk ci suba ëllëg lu ma yàlla kenn xamut mu ne kañ lay taw lu may yàlla te léeg-léeg nga dégg météo wane suba danaa taw ñoom ay mandarga la ñuy gis rek waaye mandarga yooyu léeg-léeg ñu wax ko te du ko def dëkk yi gën a avance léeg-léeg nga dégg ñu ne sedd bi bés nangam lay jeex bés boobu neige commencé ci kan xamut ci ban suuf lay dee. kenn xamul kañ lay yowmal qiyaamati di taxaw yonent bi ci boppam bañ ko laajee mate saatu mu ne loolu yàlla moo ko xam laysa al masulu anha bi alama min asaail kiñ koy laaj gënu koo xam ki koy laaj ñu laaj ko mandarga yi mu ne jéebéer jur sàngam nga gis sàmmkat yi ñi daan

du feeñalal xaybam kenn lu may kum gërëm kumb nga wan gërëm wan la dara ci xaybam ak yonent bi xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi toog na wax ne gis naa ñu dugg màkka xarmal dugg googu am na di la amut ci moom ci at bi nga xam ne moom la foogoon ne ci lay am dee kenn xamut kenn xamut kañ ngay dee waaye loolu setti na yàlla léeg-léeg mu xamal jaamam bés bi muy dee am na jaamu yàlla bu newoon fii ba mu feebaree dafa ay mbokkam ne mu ba lay dee mu dee àllarba loolu yëpp terewul ne ci xam-xam yàlla la bokk waaye juróom yii daal yent bi tudd na ko xaybu yàllaa ko moom xaybu nag ñaari xaybu la lu bàyyi wax xaybun xaaba anka wa xaybun xibta anhu xayb boo xam ne daf laa fàddu mu ngi mel ni xam-xam yi yépp mu ngi mel ni Dakar nu mel fi ne nii ci ku nekk kaw fa laa fàddu ak xayb boo xam ne yaa fàddu moom mooy yàlla boo gisul yow yaa fàddu xayb boobu yaa ko fàddu waaye xayb bi la fàddu mooy nit ni Banjul mel ci ku nekk Kaolack ni Dakar mel ci ku nekk Banjul wa hakaza lu kum neex yàlla nag mu xamal la ci li nga xam ne moo ko jogoo tukkee na ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa wax na ne yàlla danay wax ne yàllaa ngi wax ne man maa ngi ci sama njortal jaam bi ci man sama jaam bi nda njortu ci man lu ko soob fii daf ne maa ngi sama njortal jaam bi ci man li nga njort ci yàlla loolu yàlla jëflante yow moo tax njort lu baax lu baax la Baay wax na ne jaam bi war naa rafetal njortam ci yàlla ngir lan ngir turoom yu rafet yi yàlla mooy karimu mooy wahaabu mooy rahmaanu rahim muti almannaanu alxannaanu arraufu loolu yëpp melo yu rafet yooyu nit rek boo ko doon seeti ñu ne la ku baax la ku ku tabe la ku nangam la ku nangam la booy dem ci moom sa yaakaar dafay rafet bàyyi ne nit ki war naa rafetal njottam ci yàlla ngir turam yu rafet yi mu ne boo àggut foofu ak àggoo ci maqaamaay rafetal sa njortu ci yàlla ngir turam yu rafet yi nga rafetal sa njortu ci yàlla kon ngir fi yàlla jaar ak yow ndax ku nekk am nga bëccëg boo xam ne dangaa foogoon ne jant du so jant sona sooti jéegu jaam bi jéegu te toroxut ci yàlla la neex ki jaar ak yow foofu tim war ngaa rafet njortu ci moom booy rafetal njortu sa yàlla doo ne da ngay seet yow loo defal yàlla ndax boobaa yow ci sa bopp ngay xiyaas waaye boo seetee ci tëddaanga ak yàlla noo mën a mel rek bu boobaa da nga rafetal sa njortu ci yàlla rod na ci ësër xaslataani laysa fawqahuma shay'un min alxayri xusnu zanni billahi wa xusnu zanni bi ibadillah wa xaslataani laysa fawqahuma shay'un min alsharri suu zanni billah wa suu zanni bi ibadillah ñaari jikko jikko ju benn jikko ju baax féetewu ko kaw rafet njortu ci yàlla rafet njortu ci jaamu yàlla yi ñaari jikko jikko bu baax fee jikko bon féetewu ko suuf mooy ñaaw njortu ci yàlla ñaaw njortu ci jaamu yàlla yi rafet njortu nag bokk na ci aadaabi tariqa bi bàyyi wax na ne teggini tariqa bi nga xam ne faw ku bëgg a jëriñu ci tariqa bi da ko tegginoo mooy ñetti yi xusnu zanni ak ak tafwidu ak shuhudil minnati nga rafetal sa njort ci yàlla ci yàlla yi ak nga joyal mbiri yàlla balaa dara xew fekk na yow yaa ngi sa lisaanu xaal mu ngi wax ne bi jamimi jaari ahkaamika ridaa yi yaa jël nga sa mbir daal ko yàlla nga dénk mbir sa bopp bàyyee sa bopp sa mbir bàyyee yàlla sa mbir moo gën a wér loolu mooy nga jooyal mbir yi yàlla jooyal bokkut ak bokkut ak jébbalul jébbalul yàlla mooy yàlla def na ba pare nangu nga waaye dafa gut nga nangu li nar a xew loolu mooy jooyal ak nag seedu may yàlla yi seedu may yàlla yi mooy sa yu rafet yi nga xam ne dëgg-dëgg yow duut sa jàmbaar moo la ko maloo waaye yàlla rek moo la baaxee may la loolu loolu mooy seetlu may yàlla yi booy say julli yàlla dimbalee la bu ñu noddee nga dem ci jumaa ji julli bu ñu wasifa nga dem wasifa bu jàng alxuraan nga jàng alxuraan bu ci gis sa bopp ndax buy kàttan am na ku la ëpp kàttan te defu ko buy muus am na ku la gën a muus defu ko booy seet ci école ba ngay jàngee sax résultat yi génn nga adme am na koo xam ne dàq ko koo jàng te adme lu rafet daal ma asaabaka min xasanatin fa min allah wama asabaka min sayiatin fa min nafsik lu la jot ci lu rafet daal ci yàlla la tukkee lu la jot ci lu ñaaw ci sa bopp la tukkee nga jël luy rafet yëpp delloo ko yàlla ndax boo gisee ne yu rafet yi yow amoo dara loo ci man bu fekkee sa julli moom nga bëgg a naw seetal ndax julli yow am na loo ci man julli soxla na kàttan ñëpp a wax ne la xawla wala quwata illa billah ñëpp a koy wax pexe amut kàttan amut lu may may yàlla te julli fo nga am carte ndora mo julli kon ni julli ku ko bi allah ko bala nga julli fo nga japp bo japp sa da nga tim yow amoo ndox manuloo bind ndox ku mom ndox mi nga jàppee ku mom suuf si nga timé bala nga julli nga taw ci kaw suuf si mbaa nga tok mbaa nga teud ya xam amuloo suuf yow bo suuf si allah ko sa julli du lumay ci jang fatiha yow fatiha amuloo ko fatiha yàllaa ko moom moom moom li ngay jàng yëpp ci alquran moom moom sa cër yëpp sa lépp yàllaa moom waaw comme lépp yàllaa ko moom nga def ba pare ne léegi nañ ma man dafa am lu ma xeeyoo ci li ma def mu ngi mel ni rek nga taxaw di xool nit mu liggéey ba pare nga ne nañ ma fay nga ne luñ lay fay nga ne bi ñuy liggéey yëpp ci sama kanam la foo ko def ñu ne dof nga yàlla ci baaxam nag moo am lu mu warlul ay jaamam ne ku def nangam ma fay la nangam ku def nangam suma xaqam ci man mooy nangam ndax ba yonentu jàng xadis jooju ba yonentu ne Muaz ndax xam nga luy xaq yàlla ci jaam yi mu ne ko yàlla ak yonentam ñoo xam mu ne ko mooy ñi jaamu ko bañ ko bokkaaleeg dara ndax xam nga luy xàq jaam yi ci yàlla buñ ko jaamoo bañ ko bokkaaleeg dara mooy mu bañ leen a mbugal mu dugal leen arjana loolu ci mbaaxam la ko coobaree waaye yàlla dara waru rafet njort ci yàlla kon yàlla nee na maa ngi ci sama njortal jaam bi ci man maa ngi ànd ak moom bu ma tuddee ndax xam yàlla ngi ànd ak ñu ko tudd tim oo maakum ay na maakuntum do yàlla ko wax maa ngi ànd maa mu ngi ànd ak yéen fu ngeen mënta nekk loolu ñu koy tudd ak ñu koy tudd ñu ngi ci biir ñu koy topp ak ñu koy mooy ñu ngi ci biir ñi ko gëm ak ñi ko ñi ko weddi ñi ngi ci biir amul fenn fu nit ki mën a nekk woo xam ne du ànd ak maayatullahi kon woowu maakum ay na maakuntum lan la firi mu ngi ànd ak yow ànd ak teraanga ànd ak teral nit sax dana ñëw fekk la nga nekk ci dara mu ne la maa ngi ànd ak yow de te léeg-léeg ci téléphone la koy wax maa ngi ànd ak yow de war na la àndut ak yow ngeen di dem maa ngi ànd ak yow bi mooy lan mooy fekkee bànneex boobu nga nekkee maag yow ñoo ci nekk fekkee da leneen nga nekk ti maag yow ñoo ci nekk yàlla nag kon bu ñu ne bu yàlla waxee ne bu ma jaam bi tuddee maa ngi ànd ak moom te xamal nañu feneen ne mu ngi ànd ak ñépp lu tax mu jagleel jaam bi koy ne mu ngi ànd ak moom bu maayatu xaasa la ànd ak ànd soppeek soppeem ànd ak teraanga yi nga xam ne nii moom la lay pare bu ma tuddee ci boppam ma tudd ko ci sama bopp bu ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën mbooloo xam bu may sàkkoo jegeñ lu di di di dox di jaam pour jege ma lu tollook sebre sebre yi loxo yi rek natt ak loxo nii lu tollook loolu rek mu ne man masako laa jegeñ lu lu tolloog peerab loxo lu toll ne fii ba fii bu fekkee lu tolloog fii ba fii moom nga bugg a jege yàlla yàlla moom dana la jegeñ lu lu fii ba fii bu fekkee dafa ma sàkkoo jegeñ lu lu tolloog peer ma sàkkoo jegeñ lu lu mel ni baa lu mel ni ñooy mi nekk ci kaw bu ma dikkalee di dox ma diggal ko di waaxu kon kay loolu liñ ci déggee mooy yàlla ku ko xutut moo ko tut xam waaye ku ko wut xam ko ndax boo defee benn pas mu def yu ko booy dox moom dafay dafay dafay waaxu yàlla nag fan lay waaxu ndax barab gën naa jege barab ci barab nga xam ne waaxu bi jubluwuñ ci barab waaye maanaa jege ñaale gi lay wax jege ñaale bi nag lan lay jëriñ mooy bu ñu ne diw ku jege président la tekkiwut ne mu ca pale ba maanaam ay weer du ñu gisanti waaye soppeem la boo xam ne lu mu ngi ci moom rek mu defal ko ku yàlla jegeñ lu tim noonu yàlla buur bu tedd la bàyyi fay jàngale mu ne jàngal ci xissa Moussa Moussa kat ba muy dégg yàlla di ko wax ne inni anallahu safaran doon ut si wax njabootam ne maa ngi génn ut gilit boo xam ne moom lañuy ñuy ca safara si la yàlla ne ko maa yàlla bàyyi ne kuy ut safara far am yàlla koy kuy ut yàlla kay da am yàlla safara ni safara di ut safara am yàlla kon kuy ut yàlla da nga am yàlla tukkee na ci ali ibn abi talibin karamallahu wajahu mu ne yonentu bi salallahu alayhi wa sallama daf koo fëgg bés mook fatima bint rasulillahi salallahu alayhi guddi yonentu fëgg leen maanaam ñu ngi nelaw xanaa du ngeen julli seydna ali ne ah yaa rasulallah yow yonent bi ñun suñ bakkan yi ci loxo yàlla la ne bu neexoon yàlla mu xeeñu yonentu bi mu ne yonentu bi génn dem dem yoonam ba muy dem nag ba seen naa Ali mu ne ba mu waxee loolu suñ loxo suñ bakkan yi ci loxo yàlla neexoon bu neexoon yàlla muy eeñu yonentu bi dem si siaatut mu ne waaye maa ngi koy dégg ba muy dëddu di dem muy dóorante ay luppam ne wa kaana al insanu aksara shay'in jadala doomu aadama moo bëri werante am loolu nag li mu tegtale mooy ne mooy ne li ali wax daal li ali wax kenn mënu koo dindi waaye ali ci beneen làmmiñ lay waxee yonent bi da waxee ci beneen làmmiñ fii aliin karamallahu wajhahu mu ngi waxee ci làmmiñ mashiatu yonent bi nag moo ko gën a xam yàlla foofu waaye mu ngi waxee ci làmmiñi xikmatu waaye ñaari làmmiñ yooyu yëpp alquran fa leen a waxee ndax alquran moo wax ne wa ma tashaauna illa an yasha allah gannaaw bu mu waxee ne li man shaa minkum an yastaqim ku mu neex ci yéen nga ngeen mu jub loolu mooy lan loolu mooy lisaan lisaan al xikmati ku mu neex ci yéen nga jub ku bëgg a jub yaa koy jéem nga julli yaay jàpp julli comme ni nga xamee ne boo bëggee joxe boo bëggee añ da ngay góorgóorlu ci am dépasse joxe dépasse ñi togg buñ toggé sax do xaar xagn bi ñew duggal bopam ci sa gaming gi ya ngi togg toggulu da nga xam heure bi sa jabar di yak wala fekke ya yakal sa bop wala ya xam da nga góorgóorlu ba lek ko ku bëgg a am yalla yi noonu nga koy défé ñu bari nak yef yalla yi dañ ah man de nangam mom yalla ci xaar yalla ma jum ma jum waye yalla buggee ma añ mu añal ma do dégg ko ci wam ko xam ku bolé won ñaar yoy ñi nangul la ku bolé won yalla ma jum ma jum boo ko booleeg yàlla bëggoon ma suur suur naa yàlla bëggoon ma xañ xañ naa yàlla bëggoon ma sol mbubu sol naa nga koy xaar mu solal la mbubu boobaa nga xaar ko ci mu jubal la ñu xam ne kon yow ci fanaaw bu wér nga nekk waaye yi la neex nga ne da ngay fanaaw yi la neexul nga bàyyee ko yàlla loolu caaxaan waaye ma na ñaari làmmiñ yëpp alquran waxee na ko kum neex ci yéen na jub mooy li la war yow nga jëm koo toggoo mu teg ci boo ma tashauna illa an yasha allah waaye mënu leen a neex dara manul leen a soob lu may mu soob yàlla loolu mooy lisaanul mashiati Seydina Ali nag ci boobu la waxee ah, bu neexoon yàlla mu xeeñu yont bi boo gisee mu teg ci ne doomu aadama moo bëri werante mooy ne mu ngi wax ne bu neexee yàlla mu xee la waaye yow tim da ngaa war a jéem a xeew di seet waxtu boo war a waaye loolu rek moom la yàq نعم doomu aadama moo bëri werante te loolu alquran la kaana linsaanu aksara عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام إن الله قد أحب فلانا فأحبه ويحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى إذا أراد عبدي أن يعمل الشيء سيئة فلا فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يحملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول هل هل رديتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا <clears throat> وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم افضلا من ذلك فيقولون يا ربنا واي شيء افضل من ذلك فيقول احل احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد ابدا حديث كان أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنا نه yàlla bu bëggee jaamam dafay oo jibril alayhi salaam ne ko yàlla bëgg na jaamam diw bëgg ko yow jibril ko defee jibril tim daldi bëgg jaam boobu jibril daal di ci asamaan waa malawul ala ne leen yàlla bëgg na jaamam diw bëgg leen ko ñooñ asamaan bëgg ko bu ko defee ñi defal ko xabul nangu ci suuf waa suuf bëgg ko nangul ko mbëggee la yàlla jaam bi mën na koo amee ci topp yàlla inna alladina amanu wa amilu salihaati sayjaalu lahum rahmaanu wuddan ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla di jëf farateeg naafile yi yàlla daa leen defal cofeel moo tax yàlla bu bëggee jaamam sant jibril mu bëgg ko bëgg naa diw bëgg ko jibril it bëgg ko wax ci ñooñ asamaan yàlla bëgg na jaamam diw bëgg leen ko ñooñ asamaan bëgg ko ñu defal jaam boobu xabul ci kaw suuf mu fexe ba am bëggeel ak yàlla moo gën a gaaw ci am xabul tukkee na abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne yàlla tabaraka wa taala mu ngi wax ne yàlla yàlla nee na sama jaam bi bu bëggee def lu ñaaw lu bon bu leen ko ko bindal bàkkaat ba def bu ko defee tim bind leen ko ne benn rek la bu ko bàyyee fekk maanaam bu ko bàyyee ngir man bëgg na koo def waaye mujjut ko def na ngeen ko ko bindal jëf ju baax ku bëggoon a def lu bon ba ci kanam mooy lii daal xeeyut ci sama digganteeg sama borom bàyyi naa ko ngir yàlla yàlla daf ko koy bindal ne ku jëf-jëf ju baax mu ne sama jaam bi buggee def lu baax te defu ko yéene na ko rek te defu ko na ngeen ko ko bindal benn jëf ju baax bu ko jëfee nag na ko ko bindal fukk yu baax na ko ko fulandil muy dem ba ci juróom-ñaar téeméer ndax man jaa bil xasanati falahu ashru amsaaliha kuñ indi benn bu baax fukk yu baax lañ koy fay waaye yàlla dina fulendi ba juróom-ñaar téeméer comme ni mu ko misaalee ci dundalekat yi kamasali xabbatin ambatat sabca sanabila fi kulli sumbulatin miatu xabbatin wallahu yudaaifu liman yasha juróom-ñaar téeméeri sax kon dana ko passé ñi nga xam ne dañuy dundale seen alal yàlla di misaal yool bi ñuy am mu ne mu ngi mel ni nga jëmbat benn pepp dugub benn pepp bi jebbi juróom-ñaari gub dugub juróom-ñaari gub yooyu bu ci nekk am téeméeri pepp loolu ñaata la juróom-ñaar téeméer la masali xabatin ambatat sabaa sanabila fi kulli sumbulatin miatu xabba bu fekkee benn pepp nga jëmbat benn pepp bi sax di juróom-ñaari gub juróom-ñaari gub yi bu ci nekk am téeméeri pepp loolu ñaata ñaata pepp la juróom-ñaar téeméeri pepp la waaye amut sax ci foofu mu teg ci ne wallahu yudaaifu liman yasha yàlla dana fulandil ku ko neex fulandi boobu mën naa dem ba àgg ci loo xam ne nii amul limite kon benn bu baax li gën a ndaw ci fayam mooy fukk yu baax waaye mën naa dem ba juróom-ñaar fukk ba juróom-ñaar téeméer ba lu amul benn limite moo tax bàyyi nee na amul kenn kenn gën kenn gënte sàggan nag ku fexe ba say benn benn ëpp say fukk fukk ndax booy defkati lu ñaaw sax bu fekkee boo defee benn bu ñaaw benn bu ñaaw lañ lay compter te boo defee benn bu rafet ñi fa compter la ko fukk yu rafet ci la gën a néew jaam bi sàggan ba yu ñaawam yooyu nga xam ne benn benn lañ ko doon bind mu ëpp yu baaxam yi nga xam ne fukk fukk lañ ko doon bind kon daal kooku sàggan ba kenn ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne maa ngi ci sama njortal jaam bi ci man loolu حديث جن جانغون سانخ لامبونوكو كان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنا نه نيا الله تبارك وتعالى في وح نين أرجانا نين ين نين أرجانا نين كل بيك ربنا وسعديك نين لي هيو نين لي هيو غناوك هيو تيرانغا غناوك تيرانغا xiw lépp mu ngi ci sa loxo yàlla day leen wax ne gërëm naa leen ñi ne ñoom ñi ne lu tee ñun ñi gërëm suñ borom te suñ borom jox nañu lu mu joxutoon lu joxut kenn ci ay mindeefam yàlla ne andax ah, duma leen jox lu gën loolu sax ñi ne yow suñ borom ana lan moo gën loolu yàlla ne ma solal leen suma mbubu ngërmaane te dootuma leen mere ba mukk kon gërëm la rek àggu ci nga àgg ci dayob ngërmaane boo xam ne mooy yàlla solal la mbubu ngërmaane nga xam ne dootu la mere ba mukk لولا يلا وح نين أرجان موتاخ جامي بلن يلا جرمي يجرم يلا لا القران وح رضي الله عنهم ورضوا عنه نيو نيلك يلا وحنا نيغا خامن نيو موم لولو ذلك لمن خشي ربه اللهم صل على سيدنا محمد فاتح المعود والخاتم وسوف ناصر الحق الحق وهذه الى صلاتك المصلي وعلى اله حق الدنيا والدار العظيم yàlla dégg la ñu topp loolu ñu ci dëpp li nga xamante ne namm namm yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam اللهم ارنا جابتنا من الاسلام بآلنا وزنيتنا اصحابنا وقدامنا اربابنا وانصارنا حضر من الجميع وغاب وزرعنا ودافع عنا وحفظنا سجل امورنا ورحمتنا وجعل خير اعمالنا ارني هذا العبد كل جنة آمين يا أحمد ارني هذا العبد كل جنة يا ربي بجاه أحمد وأحمد ارني هذا العبد كل جنة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أنت نصر ناصر صلاة موصلة من مزيد بلدا موصلة تاني من جنة بإن شاء الله آمين آمين صلاة موصلة من مزيد بلدا موصلة اللهم صل على سيدنا محمد آمين يا رب آمين يا رب صلاة الموصلة بالمدينة آمين يا رب آمين يا رب yal na nga yàgg jàng rek yal na di félicité fu nekk la ci mën a jëriñu ñaan yàlla gën a yaatal loolu yàlla gën a yaatal loolu yasulla sla kon am na ñaata xadis ngeen waxoon ne moom lañ moom moo yëwut seen kii bi vingt cinq moo ci manqué waaw loo xam naa dañuy bëgg waaw bu subaa waaw bu waaw kon bu bi dana am